a sori ma bàyyi suma ma naataango expert mhm. mu nuyu téléspectateurs yi voilà merci coach donc euh, salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu waa Thiès di nuyu waa Sénégal nuyu suñu téléspectateurs yëpp Prestige TV ñi ñuy seetaan à travers leur téléviseur ak ñi ñuy seetaan à travers maintenant les les réseaux sociaux ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni seen émission Ecomag dellu si na tey ci euh, di leen indil beneen numéro ni ñu koy defee à chaque fois di euh, visiter un peu rubrique économique yëpp. donc cet fois si ñu indileen invité de taille boo xam ni que vraiment dina am ci fànn économie boo xam ni dina ci am lu mu leen ci indil bu baax leeralante ci ak yéen euh, vraiment donc euh, ñëpp mën cee gindeeku bu baax a baax a baax ni mu ko waxee ñoo ngi nuyu waa kër gi di nuyu euh, le PDG di nuyu donc le directeur des programmes Daouda Gueye di nuyu kilifa diine kilifa aada yi ci dëkk bi yépp incha allah kon xam naa ba ci kanam rek nga présenté coach sa sa sa invité vraiment ñu waxtaan ak moom.

Aïda Guèye Niang ci lu jëm ci liggéey day jàngalekat la directrice d'école la xam nga suñ demee ba dénk la école ça signifie que yaakaar nañ ci yow dara mais aussi gis nañ lu baax ci yow deuxième élément aussi Aïda Guèye Niang leader féminin la lu jëm ci affaire association lu jëm ci affaire syndicat surtout ci lu jëm ci syndicat moo gën a tax tey ñu invité ko mm-hmm. ah tungu ne du toog ñu nataal madame Aïda Gueye ñu ne la tafadal bisimilah ma allez allez madame l'invitée salaamaaleykum <laughs> donc lu euh, ma ko jungeen léegi mhm. tungu ne du teg ñuy nataal Aïda Gueye mu ngi nii toog Nous suñu nous ñu commencé à de économie contribution du mouvement syndical Nous dégg ñu syndicat syndicat mais des fois dañuy dem ba syndicats syndicat économie alors que les syndicats le mouvement syndical contribue beaucoup contribue beaucoup à l'économie nous recevoir son invité Aïda guen Aïda guen ñaa tafadal bisimila ma ci keppaari économie euh. ah lu ñuy njëkk waxtaan ak yow mooy laaj la Aïda yaay kan tungu ne du toog ñuy nataal absolument euh, jërëjëf Ali euh, mangi ziar du Nio, ak m'a ma bokkal plateau bi Mansour Gueye mm. di aussi téléspectateurs yi ñuy Hall. di ñëw rek ci laaju aali bi muy présentation ay dëggeen ñang euh, doomu Thiès la euh, ngi juddoo Cité Lamy màggee fii euh, jàngee fii amee fi bagam ci 1995 lycée Malick Sy yàlla orienté ko ci njàngale commencé jàngale 1998 commencé ko ca Dagana ba tey ma yore direction ci IEF Thiès département

il fallait nous ànd pour mener dem euh, am plan de carrière ba ko yalla defé ñu and ba am suñu plan de carrière tay sori nañ ci lool ci mouvement syndical jóge ci suñu syndicat de branche ba dugg ci euh, organisation fêtière comme biñuy wax la CSA confédération des syndicats autonomes ñu nekk ci di ci yëngu aussi ci mouvement des femmes euh, de de la CSA voilà ah merci Aïda kon donc vraiment gis ngeen ko ah junjun na affaire. Mhm. ni ñu koy waxee ci su naree neex su baxee xëy. dëgg ah. <laughs> euh, expert. Mhm. mais madame Guène Aïda. Mhm. fii ci keppaar gi man maay coach. Hein? Mansour mooy expert. <laughs> waaw non la ñu tuddee <laughs> donc vraiment. Euh, donc mu ngoog dégg ngeen présentation bi. expert amul loo ko ci sànni. waaw am solo lu am solo parce que li nga ci wax léegi da nga ni invité bi yaay la. yaay la. bi mu ñëwee aussi wax nañu fi mu fi mu ci jaar jàng na ba am bagam ñu oria yàlla orienté ko ci njàngale tey mu nekk ci syndicat di ci yëngatu waaw yaay gi ak jàngale gi ak syndicat gi moom loolu lépp est-ce que no no noo koy dundee ndax dafa mel ni bari na te metti na lu mu ci doon maanaam rôle boo ci jël rek metti na daa mel ni àdduna rek waaw loolu moom dafa mel ni daa yéenu àdduna ah. waaw loolu moom loolu naa nga xamal ñu ci tuuti nan nga koy ndax ñi lay seetaan te bëgg a mel ni yow wala bëgg a jaar fi nga bëgg a jaar te ragal xañ na jàpp ni bu ñu defee yenn yi peut-être duñ ci génn wala bon duñu gestion temps bi mën naa poser problème et cetera nan nga koy dundee loolu en réalité euh, jërëjëf euh, Mansour hmm. donc euh, li nga ko waxee loolu ñett yooyu nga tudd lépp boo ci jël responsabilité la hmm. jàngale yore direction responsabilité la ndax yaay day doon yaay ci kër goo xamante ni gën jaa néew day doon téeméeri gone mhm. ah, am na yaay boo xamante ni day doon kër goo xamante ni mhm. euh, xëy na ñaar ba ñett mais boobu responsabilité la nga mhm. boole ci nekk directrice d'école responsabilité la nga boole ci encore demaat ci organisation syndicale boo xamante ni euh, lay topp sa gannaaw gën jaa néew day doon euh, juróomi téeméer dëgg loolu it responsabilité. waaye lañ ciy def rek mooy li ñu koy tubaab bi di wax ni comme dañuy dañuy lépp jour fo fo la. Mm. àdduna lépp fo la. Mm. waaw dañ koy joué. dañ koy joué dañ koy joué. dañuy jonglé. Euh, bu la yàlla mayee nag nga nekk ci euh, environnement boo xamante ni ña ko séqal xam nañ ni yow da ngaa yanu nangu nañ ni yow da ngaa yanu. Mm-hmm. day oyof. ñu ko ciy réussir am na fi ñu koy réussir mu oyof mm-hmm. mais safaan bi aussi day am da ci gis euh, boo xamante ni day day diis parce que xëy na environnement ba nga nekk mm-hmm. comprendre wuñu la yanulewuñ la waaye alhamdulilah ñun ñi ngi sant yàlla mm-hmm. euh, li ñu ci nekk euh, ñu ngi ci di góor góorlu ñu yàlla booleel aussi am nañ ci comprendre nañ ñu ci di ci jàpp

donc suñu émission day am royuwaay toujours mhm. donc duñu indi n'importe qui mhm. bu ñu tànnee indi la nga nangul ñu ko rek mhm. sant nañ la bu baax a baax a baax xam naa ma bàyyi ko si rek mu dugg c'est ça nga sax kàddu gi ndax ku mën a yenn loolu yëpp royukaay nga dëgg la mën ko yónni te doo yuuxu doo di si góorgóorlu nee na sax yarga yarga moom mu nga jógee kër ga ça c'est sûr et certain na am peut-être suñu duggoon ci cosaan yi. waaw <laughs> expert mun na comprendre nan nga def ba yenn yooyu. dëgg waaye xam naa ne dina am jamono. ñu dugg ci cosaan googu parce que des fois. Mhm. Euh, dinay baax xale yi di am royu royukaay surtout jigéen yu mel ni yéen. Mhm. modèle mhm. mais tey lu gën a tax ñu ñëw mooy mbirum syndicat. contribution à l'économie. mais syndicat lan mooy njëriñam. soxna Aïda. d'une manière général ñu dinañuy dégg syndicat rek mais lan mooy njëriñam. voilà syndicat bu ñu ko dee tënk dafa nekk mbooloo muy dajale ay liggéeykat yu bokk pas-pas euh, bokk aussi jëmuwaay. Mm-hmm. Euh, ci ni ñu ko dundee parce que benn vécu rek laa mën a partager ak yéen muy euh, sama vécu syndical ci sama corporation d'abord may jàngalekat. Mm-hmm. donc bu ñu jëlee syndicat bi ñuy wax syndicat jàngalekat bi ñu nekk ay jàngalekat ñoo ciy nekk. Mm-hmm. ñoo bokk ay. plan de carrière ñoo bokk aussi ay ay vision hmm. donc ñooñu le syndicat yi di dajale euh, donc bu ci tënk rek mën nañu wax ni syndicat day doon mbooloom liggéeykat boo xam ne day déglu ay liggéeykatam di leen former mais surtout di leen protéger euh, ngir seen liggéey gën a ñoom loolu la euh, mais yaa ngi naan dama bokk ci syndicat ban syndicat la noonu waaw sama organisation bi nga xamanteni mom lañ may xamé, mi ngi tudd organisation pour le renouveau syndical. Mhm. muy organisation bu bees juddu ci organisation ba ko gën a mag mu nekkoon CELS authentique CELS authentique bobu juddu ci CELS. donc ORS mën nañ wax ni 3 troisième génération la euh, ci jaar-jaar euh, yo xamante ni doon nañ ko dundé ci mouvement syndical parce que renouvellement yi parfois fay indi ay problèmes. Mhm. looloo indi. Euh, mu nek ay li ñuy wax émiettement. di mm-hmm. judd di judduwaat. Mm-hmm. donc euh, li ñuy jàpp daal mooy euh, syndicat bi ñu bokk ñun mu ngi tudd organisation pour le renouveau syndical. mais loolu loolu euh, syndicat jàngalekat la. syndicat jàngalekat la bokkut ak CSA bi nga njëkk a wax. déedéet CSA organisation une différence am ak CSA. voilà léegi différence am ak CSA. CSA dafa gën a yaatu. CSA mooy lan ci encore confédération des syndicats autonomes. moom central la. central nag dafay ëmb organisation de branches yu mhm. secteur yep, secteur éducation secteur santé agriculture hôtellerie euh, énergie yooyu yëpp am ci biir CSA mhm. donc mu nek centrale bu yaatu mhm. bu boo xamante secteur yi nga xamanteni ni nit ñaa fay nek di yëngatu yep amna fa représentation d'accord euh, waaw man té li ma ci bëggoon na xamal moy par exemple ñu euh, par exemple xam syndicat yi Euh, yan forme syndicat ñoo am parce que parfois damay dégg syndicalisme d'affaires mhm. parfois mu dégg syndicalisme révolutionnaire ah. euh, syndicalisme participatif mhm. yooyu lan mooy seen différence ak yéen seen syndical ban ban ci ban la euh, kii la bokk ci ban forme la la bokk moom voilà ni nga ko ni nga ko léegi wax naa ko rek ni vécu laa bëgg a partager ak yéen ñun mhm. li ñuy dund ni ñu ko dundee bu ñu ko dee définir ni ñu ko yëgee bon ñun ñun suñu syndicalisme bañ dugg dafa sorewul ak syndicalisme révolutionnaire hmm. ndax dañu fekk euh, étant kat euh, taux de scolarisation wàcc lool ñu binduñu daal ne na ngeen fexe ba ñu yéegal taux bi yàlla def bi ñu bindee ñu contribuer bu baax ba taux bi yéeg hmm. mais ñu gis ni dañ fay lu suufee lu ñu waroon am hmm. donc on a révolutionné le mouvement ci la ñu taxaw ñu ne lii il faut que ñu defal benn plan de carrière jàngalekat yi ñu wax jàngalekat yi wu defal len plan de carrière nonu lañu juddo ñun donc ñun suñu boss sorewul ak syndicalisme révolutionnaire mais buñuy dund di évoluer dañu xol ñun en tant que travailleur ak suñu environnement mm. ak liñu soxla nan lañu mëna défaré ba nga xamanteni euh dinañ ñu ragné ci la ci la ay yeneen vocable di dugg. Mm-hmm. dem nañ ci sunu texte yi da ngay gis dañ naan dañuy def syndicalisme de développement. Mm-hmm. léegi syndicalisme de développement boobu lu mu wund mooy en plus de la revendication du revendication rek la ñuy def. mais dañuy xalaat def formation dañuy xalaat mm-hmm. euh, investir. loolu yëpp am na ci. parce que développement bi lu mu ëmb dafa bëri. lu am solo la voilà revendication bi nag xam naa ni moom. moo gën a moo gën a fës de. <laughs> am na ñoo xam jàpp nañu sax syndicat moom. <laughs> day revendiquer pour revendiquer rek. <laughs> alors que ndekete am na yeneen. am na yeneen am na yeneen am na yeneen. ci ngeen jëm de développement. waaw ñu ngi ci de bokk ko. waaw syndicalisme de développement bi fi mu nekk nii fi ñu ci toll surtout ak euh, renouveau syndical bi euh, fañ ci jëm. loolu lañ ci bëgg parce que bo sété ñi nga xam ne moom la renouveau euh, wuñu bokku ñu choono ak ñun bañuy ñuy di def revendication ndax ñi danaka ce sont des travailleurs un peu accomplis am nañ expérience yag nañ ci mm. xëy na ñi ci gëna a moy mooy ñi doga ñew té profil bi d'entrée bi légui c'est bac plus mm-hmm. euh, aussi voilà mm-hmm. ambition donc mm-hmm. pour construire ce syndicalisme de développement mm-hmm. bi nga xamanteni force de proposition euh, mais surtout euh, force de regrouper, d'investir, mais surtout d'accompagner le travailleur pour un épanouissement dans son milieu de travail. C'est ça. Donc, euh, vraiment, ni ñuy xamee syndicat mais tey bokk na ci lu la ECOMAG gën a taamu nga ñëw ndax daa mel ni dafa am lu xaw lu war a xew ci lu jëm ci affaire syndicat est-ce que mënoon nañ xam loolu lan la nga wax ko téléspectateur yi ah jërëjëf Ali donc lii nga xamante ni tey moom mooy actualité ci monde syndical ak monde du travail de manière générale mm-hmm. mooy dañu nekk ci moment boo xamante ni euh, dañu war a euh, soppi dañuy tànn dañuy tànn ñi nga xamante ni ñooy teewal liggéeykat yi ci institution nationale ak ci institution internationale mu doon euh, des moment de jeu démocratique renouvellement la nit ñi travailleurs yi war a dem ci urne yi exprimer wu mm-hmm. tànn centrale yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di teewal ci Sénégal ak ci bitim réew. Euh, loolu la ñuy wax les élections de représentativité des centrales syndicales. ñi ngi ci processus le temps yi ñi ngi ci phase euh, campagne euh, donc le 12 dina am expression bi nit ñi travailleurs yi nañ dem tànn organisation yi nga xamanteni ñom ñoom ñoo leen di teewal comme nima ko waxé sank hmm. waaw waaw lu am solo la donc loolu dina permettre vraiment ngeen. ñu xam kii kii. Mhm. parce que parfois nag syndicat yi day bari trop trop. Mhm. centrale yi bari et tout mhm. donc ñu xam kii kii. ku xam ku nekk xam ne ki lay représenté et tout loolu am na solo. mais bëggoon naa xam également euh, man syndicat yi ñi ci bëgg a bokk wala ñi ci bokk ba pare. sar euh, lan ban njëriñ nga leen amal dëgg-dëgg les avantages. avantages yi nga xam ni syndicat dina ko indil. liggéeykat bi indil ko même entreprise bi mu nekk. yooyu avantage yooyu daal bëggoon nañ ko bu fekkee syndicat am nay inconvénient aussi ñu xam ko. waaw parce que des fois dañ leen di dégg ngeen di kii rek wax. ñëw leen ci syndicat bi ñëw leen ci mais lan mooy njëriñ bi. Mhm. njëriñu organisation syndicale. Mhm. Euh, comme njëriñu organisation yépp euh, dajale boo ko defee di nga fa am installé li ñuy wax écoute. Mhm. di nga déglu ñi nga dajale. Euh, ñi nga dajale aussi di nga xool foo leen di jëme ndax. tey fii tey euh, àdduna bi fu mu toll euh, ni ñu ko gisee metti na euh, liggéey jafe na mm-hmm. te syndicat ay liggéeykat la dajale bu fekkee ñun secteur bi ñu nekk ay liggéeykat yoo xamante ni ci ci ci xel la ñuy liggéey. Hmm. Euh, ñooñu li ñu leen mën a proposé mooy tàggatal leen seen xel ba nga xamante ni euh, lépp lu ñu sumb dinañ ko mën a daan. Hmm. donc loolu am na ci biir syndicat. formation quoi formation bi am na ci hmm. biir syndicat. donc loolu lu ñu mën a jaay ci biir syndicat bi la. am na leneen lu am ci biir syndicat bi euh, ñu ñu ñu xam ko ci vécu lu ñuy dund mooy jàppale. entreprise bi ngay liggéeyee parce que fi ngay liggéeyee muy entreprise ñu mën koo tuddee ñun bu fekkee jàngalekat yi école bi entreprise la si ñun ndax ci la ñuy liggéeyee hmm. ku nekk fi ngay liggéeyee ki tax ñi lay fay kooku doo ko sa yàq doo ko saboté donc loolu am na ci biir ci biir euh, ci biir euh, syndicat hmm. di nga formé wu di nga jàppale entreprise bi ngay liggéeyee ba nga hmm. xamante ni du yàqu di nga ci mën a jëriñu ñi sa ginnaaw ñëw jëriñu ci donc euh, loolu mais c'est que parfois est-ce que est-ce que a une euh, revendication du rey entreprise parce que tey am na ñoo xam revendication yu bari day jublu ci yokkal leen salaire yi yokku leen salaire yi yokku leen salaire mm-hmm. mais am genre entreprise yoo xam bu day jàngalekat peut-être euh, mën na bañ a demee mm-hmm. mais am genre entreprise de production wala y xam ni mm-hmm. tey am na nu ñuy yokkee salaire mais mën na répercuté wu ci profit yi te entreprise aussi yu ci bari profit la ñuy dundee est-ce que demander yenn genre augmentation yi te proportionnelul vraiment ak productivité bi loolu est-ce que aussi du rey entreprise en réalité. waaw man foofu soxna ay euh, soxna ay dëpp bëgg naa kii. teg baaraam nu ko kii. Mhm. parce que ay temps damay dégg dañu grève dañu truc. mais ci lu jëm ci entreprise privée. Mhm. ay temps grève yeeg. Mhm. ñoom seen ak yooyu. ay temps na nekk loo xam ne dina koy gaañ. ba finalement travailleur bi. ay temps sax liggéey yëm mën na ci na sax. absolument ce qui fait mais loolu loo ci xelaat.

Mm-hmm. ak répartir production bi la mm-hmm. consommation mm-hmm. donc ñi ci par exemple bu ñu entreprise bon par exemple kuy défar ciment Nous euh, di euh, production bi bari mais ñu jël ko employé diko fay cinquante ah ku ciment lu ñu mëna jël nit diko fa fay mm-hmm. ah, bu revendication mi ngi ci yoon. Mm-hmm. bu revendication ma mi ngi ci yoon. ndax production bi élevé na. Mm-hmm. richesse yi nañ ko avons bon. donc revendication Nous ñu ci entreprise secteur éducation. parfois damay tooñ sama euh, ñi may nekkal ñu naan yéen xaalis sax ngeen laaj may leen ah, ah kay man rusuñu ko dañuy laaj xaalis <laughs> hmm. ndax ñun xaalis bi ñuy laaj buñ ah, ah. ñu ko joxee hmm. yéen a ngi koy gis ñun ay acteurs économiques yu wóor lañu ndax bu ñu jëlee xaalis bu ñu ko jëlee hmm. ña ngay dem jox boutiquier bi boutiquier bi dem jox grossiste bi absolument grossiste bi dem jënd indi xaalis bi di tourner damay dem parfois ba wax leen ni cordonnier bi nga xamante ni mi ngi ci koñ bi ñun ngeen di gis ñun la sunu daal di dagg ñoo fay dem di ko defar mhm. gisoo leen ña ca kaw ñun yóbbu seen daal ci cordonnier mais yow xanaa économiste nga waaw nu ngi koy waxee ñam na ci économie de c'est que nag jàngalekat jàngalekat moom foofu nekk moom ah soxna Aïda bu élémentaire bu élémentaire toujours dañ naan la ah. lu nekk pour euh, euh, une notion élémentaire absolument il faut nga am yëg-yëg bi donc ñun Mhm. liggéeykat kat euh, yo alimenter le circuit économique. absolument waaw surtout richesse. mais les richesses sont très mal réparties. absolument donc euh, ah non non am solo ah. économiste parce que mhm. en général. Mhm. économiste sax xel xel euh, monnaie circuler. circulation bobu muy circuler vraiment développer. donc ñuy mën a jaay di jënd di di affaire yi affaire yi mën a dox donc lu foofu lu am am solo la yaa ngi koy wax ci côté jàngalekat yi mhm. mais mais ci beneen côté bi côté entreprise mhm. côté entreprise waaw côté entreprise est-ce que est-ce que aussi parfois mhm. laajum xaalis bi baax na yokkum salaire yi baax na mais est-ce que yéen a ngi former seen gars yi ñu xam dëgg-dëgg yokku salaire ci lan la war a tegu parce que aussi dafa dafa dafa bokk ci ñi nga xam grille salariale ku nekk ah, travailleur bu nekk nga xam moom fan fourchette fan la nekk fan la fan ba fan par exemple le salaire am war a toll yan condition la war remplir pour am tel salaire yan condition la war remplir pour am tel avantage etc. etc mhm. mais jóg rek am na ñoo xam ne dañuy pour rek di laaj pour laaj c'est que parfois li ñuy laaj aussi même lu entreprise bi liquide liquide mhm. parfois ñom du seen ak ak seen yelleef mhm. parce que réunir nañ conditions condition. est-ce que yene ngi former nit ñi ci loolu c'est surtout les dirigeants bañ a entreprise di daal voilà ñu bañ a entreprise parce que entreprise boo ko reyee aussi nga yak sa salaire en réalité waaw dëgg la dëgg la donc mm-hmm. euh, comme ni nga ko waxee euh, xëy vécu vécu central lay doon. Mm-hmm. Euh, lu papa ci waxtane yi da ciy feeñ ngay gis ko xamante surtout ci contexte bi nek ni nii daan ñun de suñu entreprise ken inscrire ñu. Mm-hmm. ki ñu jël mbir mi liggéey bi déméwul non inspection contrôlé wu ko. mais dañ ciy waxtane daan neen da ngeen da ngeen di da ngeen di fexé ba nga xamante li ngeen di liggéey li ngeen am du daaneel fi ngeen nekk ndax fi ngeen nekk bu daanoo. Mhm. dootoo leen am. du sotti donc liggéeykat bi ci boppam dafa am droit. Mhm. protéger entreprise bi. donc ñu day feeñ ci suñu waxtaan yi. dañ ciy waxtaan dañ ciy mhm. waxtaan mais comme daanu dajul suuf. donc euh, ndànk-ndànk rek. mooy jàpp golo ci ñaar yi dañuy ndànk. Euh, mais vocation CSA moom euh, loolu am na fa dañuy toog di waxtaan. lu ñuy def surtout ba protéger le milieu du travail absolument ah. parce que nag bari de fa manque surtout la formation mm-hmm. même dans na ba politique mm-hmm. politique ne forme plus mm-hmm. nga gis rek day euh, non oui mais mais toujours qui employé Il y a lim qui ont koy formation ba une formation defe tudd nga masse la bokk waaw est-ce que amul ay exemple yoo xam ne mënees na koo gis ñu constaté ko surtout lu jëm ci masse salariale bi li ngeen di a jëndee defaree seen dàll yi ci udeya jëndee ko ci bitig bi. Mhm. est-ce que amul ci ay misaal yoo xam ne au moins. Mhm. ñun yëg nañ ko peuple bi yëpp yëg na ko yoo xam ne muy njëriñ ñi travailleur bi. Mhm. xëy na question bi mën na gën a leer. Euh, ndax. niñ ko doon wax.

secteur éducation bi nga xamante ni mm-hmm. moom la def augmentation bu tolloon mosuñu ko am ah waaye nag augmentation bi mm-hmm. dañ koy lëngaleeg le coût de la vie absolument ndax euh, bu fekkee ni dañ laa yokkal loo xamante ni mm-hmm. boo duggee ci boutique bi denrée ba nga fa doon fekk bu nekk boo laajtee à la minute ñu ne lu doublé nañ ko yokk gi du feeñ pouvoir d'achat bi daal. waaw ma ngoog. ma ngoog yokk gi du feeñ. Mhm. Eh, te foofu lañ toll. Mhm. Eh, xëy na bu nit ñi bu ñu toogaatee ñu ne nit ñaa ngi laajaat augmentation de salaire dañ ne waa ñii ñoom fu ñu jógee bay laajaat augmentation de salaire ak li ñu leen defal yépp mais nañu jàpp ni. Mhm. fii denrée de première nécessité yi wàññi wuñu ko. lu ñu mën di yokk du feeñ. te pouvoir d'achat boobu dafa nekk ñaareelu point bi nga xamante ni euh, CSA mi ngi ci taxaw. Parce que le coût de la vie. Mhm. c'est que parfois ça, coût de la vie augmentation de salaire parce que salaire. dafa dafa am ñu mu concerné ñu ndaw. par rapport ak population bi. Mhm. alors que boo wàññi woon coût de la vie bi. Mhm. daanaka day ñëpp. ñëpp dañuy mën a dugg. surtout travailleurs informels yi. travailleurs informels yi dañuy mën a dugg quoi mhm. donc euh, foofu daal ak agir également sur les sur euh, les taxes. les taxes nga xam te ne si ñoo ngi koy teg ci yenn salaire yeeg yenn kii yooyu. bu ñu ko wàññi woon rek yaakaar naa ñëpp. ñëpp gis ci seen bopp quoi. c'est ça. moom këñ moom constaté nañ ko sax vraiment temps yi mhm. gouvernement bi defoon na effort. Mhm. te loolu vraiment gis nañ ni syndicat yi ñoo ko xeexoon. Mhm. boo gouvernement bi indi kooku. donc loolu njëriñ yi syndicat la par rapport aux travailleurs. waaw léegi eh, gis naa ne aussi yéen des fois. da di tax ba ñuy jaaxle ne ñun ñu nekkul ci syndicat yi. ah dëkk bi daal day tàng bés bu nekk ñu naan tey dëkk bi kii est-ce que lu jëm ci jàmm dëkk bi mu kii waxuma affaire politique. est-ce c da ngeen ciy dugal seen loxo. des fois dinay dégg un dialogue social etc. est-ce que y président ngeen foofu. ah kay ah kay euh, dialogue dialogue social ñun ay partenaires lañu. Hmm. partenaires lañu ci dañu ci dañu ci ci au niveau des départements am ay comité de dialogue social. Euh, au niveau national aussi comité de dialogue social national syndicat yi ña nga fa dañ participer hmm. kay li euh, parfois dialogue da ngay dialoguer ak koo bu ngeen tënkee dara dina topp li ngeen tënkoon jéem koo doxal heure boo déggee ni yëngu nañu rek mooy blocage bi mhm. ci ki war a am volonté régler la ñu fa tënk mhm. ci kooku lay jóge lépp daal yéen respect des accords ngeen laay dégg lu ci ëpp lu ci ëpp ah loolu nag dafa war a tax nit ñi di di xalaat ne respect des accords mhm. ñun liggéeykat yi euh, ñi ñuy liggéey loolu yore euh, volonté politique bi. Mhm. bu fekké ni ñom amuñu volonté euh, mettre en œuvre yi nga xamante mom lañu dialoguer ba tënk ko. Mhm. ah lolu mom moy indi parfois certains blocages. Euh, blocage yoy nak ñun du luñu gënal. ndax ni ma ko waxee sànq rek ku sañoon sa environnement de travail du yàqu. Mhm. ndax nit bo xëyee liggéey ba ngay dem di liggéey dang nga da am mbékté ah, kat deug fa ngay xey di liggéey dang ci am mbégte donc buñu sañone euh, blocage du am mm-hmm. mais ay partenaires actifs lañu dans le dialogue social mm-hmm. partenaires très actifs ah, lañu ñu ci duggal seen loxo bu baax bu baax bu baax ah, bu baax waaw loolu ci avantage ci mm-hmm. avantage syndicalisme le bok mais sank nee naa ko euh, syndicalisme di ñàkkul ay inconvénients waaw waaw bon lan nga ci jappé lan nga jappé ay inconvénients ci le mouvement syndical xam nga bo nekkee ci dara en général bo boko ko bëgg ko doo gis inconvénient waa xëy na dina am ku gis inconvénient syndicalisme mais man gis ma ci inconvénient ndax lépp njàng la mhm. lépp njàng la nga ñëw ci euh, am ci réaliser wu ci mhm. am ci dara danga ciy jàng nga ñëw ci aussi euh, xëy na li nga ca gisoon bëgguloo ko di nga ci jàng. dëgg la donc euh, man daal. mouvement syndical loolu loolu loolu ah. syndicat bi peut-être la la la lay lay concerné. Mm-hmm. Mm-hmm. mais entreprise bi. entreprise est-ce que parfois du ngeen créé yéen ay blocages yoo xam ni. Mm-hmm. c'est-à-dire euh, entreprise yi ngeen ngeen ngeen leen ay pertes journalières yoo xam ni parce que. tey bu ngeen bloqué benn entreprise. liggéeyul un jour deux jours trois jours. moo kooku ñaata. en terme de de français CFA ñata lay ñàkk mom lolu loolu également ay ay inconvénient la. gis fi ngay waxee bu côté mm-hmm. boobu waaw loolu mën naa inconvénient mais ba tay rek entreprise bi. yi mm-hmm. nga xamné ñom ñoy employeur je pense que war nañu def de telle sorte que danañu anticiper ci problème yi. Mm-hmm. ba blocage du am. parce que li mën indi lolu ngay wax euh, perte financière. bu 24 heures wala bu 48 heures plan d'action rek la mën don doon. léegi te travailleur bi bala mo egg ci plan d'action dina la wax ah man kat yaa ngi may liggéeyloo mm-hmm. waaye lii nga ma teg wala lii point bii bëgg naa ñu waxtaan ci. Mm-hmm. balaa muy am weer mooy li ñuy wax préavis. fii gisoo fi benn travailleur bu génn rek xëy. Mm-hmm. daal di arrêté travail am. day doog dugal préavis de grève am wax ko ne que ñëwal ñu waxtaan. ah koo dugalee sa préavis de grève nga wax nit ñëwal ñu waxtaan employeur ñëwul. ah bu safaan amee ci moom la.

C'est wax négociation c'est qui euh, dialogue donc c'est travailleurs et employeurs. Mhm. donc si bu que ñu grève parce que grève rek paralyser entreprise. 24 euh, heures de grève xajul ci entreprise. entreprise voilà. Mhm. Mhm. c'est ça. Euh, damay un peu ci contexte nous avons une élection mais yan élection la élection présidentielle élection de représentativité dama dégg mu une élection. est-ce que mu ngi ci xuus bu baax. en même temps est-ce que est-ce que c'est ça est-ce que euh, tamit mis de ci. <laughs> voilà <laughs> ah, élection yi. Euh, hmm. waaw élection yi jongante la élection la. waaw liggéeykat yi. Hmm. ñooy Nous ñi di teewal. ah mu élection de représentativité.

Mhm. mais élection présidentielle daal. déedéet ah d'accord ok parce que maintenant faut qu'on ait élection yi ñëw rek élection présidentielle là ah. non <laughs> parce que nous voulons déggee gars yi di là coowee bi waaw bii bii nous syndicalistes yi ñooy tànn seen ay délégués yi leen di ci ci table de négociation ni ma ko à léegi. ak ci mhm. institution financière yeeg yépp dañ ciy nekk ay centrale syndicale centrale yi dañoo bëri. Mhm. loolu tamit day wane ni bu ñu ko defee dina rationaliser. liggéey bi taabal de négociation. parce que 19 centrales wala 18 centrales syndicales. ku nekk nga bëgg koo déglu bëggee wax ak ñëpp du sotti. du donc euh, bu ñu paree bu ñu defee bu travailleurs yi demee ci urne yi ba exprimer wu. Mhm. ñi am di pour cent. Mhm. ñooñu ñoo am une repre une bonne représentation. ñooñu am nañu pour waxal travailleurs yi. Mhm. bee weesu 2017 bañ ca génnee génne woon nañ ci juróom ñoo xamante ni ñoom la liggéeykat kii euh, nu ñu koy waxati. nguur gi ak patronat bi ñoon lañ doon waxal. bi aussi buñ ci génné dinañ ci dañuy tanat ñi nga xamanteni ñom ñoy téwal liggéey kat inshallah au soir du 12. mais soxna Aïda nee nga bee weesu juróom. Mhm. te tudduloo ne a ma du da ngeen ci newul wut xana yeen yeen juroom ben u juroom yar ngeen nekk ak ay man fama nekk central bima nekk nyugis ñu gis ko ci muy muy yëngu muy yëngu ci ci combat travailleur yépp de manière générale mhm. euh ma ci ma nga ci jëlone ñettelu place bi Euh, ñoo jëloon ñetteelu place mon 3 troisième centrale au Sénégal. en termes de représentativité quoi. en termes de représentativité. Mais muy CSA mais ñan la woon juróomi ah, waaw bon moom la moom CNTS CNTS FC UNSAS. Hmm. Euh, CSA ak euh, la centrale de de feu FGTS. FGTS ok d'accord. accord. c' vous ça léegi foofu ah, ñan ñooy voté. travailleurs yi voté. Mhm.

mën ngaa bañ a syndiqué. Mhm. te ngay xool le comportement organisationnel gis nga centrale yi ku nekk ni muy yëngatoo. nga gis central yi nga xam ne ñoo nekk ci côté travailleurs yi. Mhm. même yow amoo syndicat mais nga dem tànn. nga ni ñii par exemple nga ni CSA. gis naa mhm. ko nu muy taxawoo jàngalekat yi. gis naa nu muy taxawoo liggéeykat yi de manière général damay dem voté ndax maa ngi ci ficier bi. éducation mon employé inscrire nama mhm. amna sama bulletin de salaire amna sama carte d'identité nationale. Mhm. bu démé buñ bu identifier ma nga fa dina mëna voter. donc nañ japp ni vote yi. Mhm. ku syndiqué ak ku syndiqué wul yépp yépp la mi ngi ci biir. ak bulletin de salaire rek nga bulletin de salaire am na wax waaw carte d'identité mais mais am ñu amul bulletin de salaire. waaw kon ay contractuel. bulletin de salaire est-ce que ñu ci lañ bokk. waaw ci ñom bu fekké secteur bobu la amna na lu ñuy wax bulletin bulletin de paye ñi nga xamante ni am nañu ay contrat mm-hmm. ay ay ñi am contrat mm-hmm. ñooñu am nañu li wax bulletin de paie bu leen entreprise bi déclaré mm-hmm. ñoom it ñu ngi ci fichier bi parce que bu dee éducation ñoom ñoo ngi ci fichier yeeg yëpp mais amuñu comme bulletin yi fonctionnaire yi am ñoom seen bulletin inspection d'académie ñoo koy produire moom la moom la ñuy wax bulletin de paie très bien ñu ngi ci fichier bi ñooñu dañuy voté da ngay am bulletin bi les contractuels waaw les contractuels am nañu bulletin de paie bu ñu nekkee ci fichier bi dañuy voter bu fekké ni beneen secteur informel bi la aussi su fekké ni euh, entreprise ba ñu nekk déclaré nañ leen ñu bulletin de parce que mhm. ay contrat lañ am. donc travailleurs yi am bulletin de salaire yëpp dañuy voté. de vote yi fan la. bon de vote pour le moment xëy dinañ ci jot fan yi ñaari euh, mardi. Mhm. Euh, dinañ ko commune publier ku xam bi war li carte électorale. Euh, ñi administration mi ngi également à travers les waaw waaw Lol aussi lu jar a leeral vote bi euh, na bi passé ñi nekkoon secteur éducation gis nañ ni bañuy ba ñuy voté ñoom seen ay euh, bañuy tan tànn seen ay représentants. Mhm. vote électronique lañ def. Mhm. mais euh, du vote électronique physique la. dañuy def ay bureau de vote. Mhm. comme niñ ko défé won 2017. wala bureau de vote comme niñ défé présidentiel non lay demee. Euh, nit ñi déplacer wu ñu wax leen bureau yi ñu war a dem. ñu dem voter non lay demee. électronique d' accord léegi man euh, leneen loo xam ne bëggoon naa la ko laaj ci vote yi ndax gars dañu def benn liste comme ni ñu koy defee ci député yi ñu def turi gars yi. Mhm. Hein, ñuy votel presque nit. Mhm. ou est ce que organisation la ñu mhm. est ce que centrale la ñuy votel ou nit la ñuy votel xam nga nit ki moom mooy tax numéro un bi personne morale bi moom ngay xàmmee organisation bi. Mm. boo jëlee centrale. Euh, bulletin de vote bulletin spécimen bulletin yi. Mhm. Euh, première personne bi ngay gis moom la ñuy photoom la ñuy def ci bulletin bi. Mhm. le bureau moo photo kii bi. Euh, nit ki secrétaire général bi. Mhm. moom la ñuy def ci bulletin bi. ok moom nga koy xàmmee. ak couleuru organisation bi. noonu nga koy xàmmee bulletin bi ngay jël tànn boo tànnee bulletin bi nit ki nekk. tànn nga organisation bi. Ah. ok voilà donc organisation bi la ñuy mhm. mais dañ koy mandargal ci kayit gi bu ñuy voter bulletin yoy comme ñuy ñuy jël. dañ koy mandargal photo bi. photo nit photo nit ki ok d'accord lu am solo d' kon loolu jar na leeral. catalogue mhm. mhm. kii bi nga ne fu ñuy voté kañ lay génn parce que saa aussi. important ndax le 12 lee mu jot naa. lee mu jot kay xam naa mhm. mardi daal gën jaa yeex. mardi incha allah la ñu wax. dinañ talaata yaakaar nañ ko ah. waaw waaw yaakaar nañ ne dinañ pare ko ak électeurs yëpp. déjà. bu fekkee ne diggante syndicalisme de eh, ndax am na ay limites également parce que man gis naa fi syndicat xam ni vraiment euh, si seen communication man jàpp naa ni ñoo ngi. waaw li ñuy wax daal ñu ngi jéggi dayoo. Mm-hmm, mm-hmm. est-ce que syndicat moom euh, encadré nañ ko quoi mu am ay limite boo ci bokkee xam fan nga war a mën a commencer ak fan nga war a mën a yem. Mm-hmm. mais gis naa ne ñoo xam ñoo ci xam ne à la limite sax dañuy saaga nit ñi quoi. loolu aussi man bëggoon naa vraiment nga nga àddu ci. waaw. am na ay limite bu baax a baax euh, Guèye ndax euh, limites yi lépp ci waaw ci expert organisation yi ay ay tànk ci ay tex lañ ko teg Euh, waaye parfois li tax xam nga sànq maa ngi naan la ñun ñun troisième génération organisation bu juddoon la pour waxal bëgg a waxal jàngalekat. Hmm. ñun ñoo ci troisième génération. dëgg la ndax dañoo am mam, am yaay. Uh-huh. jóge foofu ñun. juddu hmm. lii indi loolu mooy ñàkk respecter limite hmm. parce que textes yi ñoom ñooy limité. da ngay gis organisation yëpp dañ naan la dafa am ay instance day am ay ay bureau exécutif am CA. Mm-hmm. am congrès mm-hmm. instance yooyu yëpp dafa war a fonctionner normalement waaye parfois dañuy gis yenn leader yoo xamante ni mm-hmm. dañuy fàtte ni ñoom ci organisation lañ nekk bu ñuy wax bu fekkee ni dañoo am double casquette day feeñ te loolu ja du du yoon mën nga ne tey nga nekk sa nekk politique mais booy def sa syndicalisme jëlal sa casquette politique nga denc ko fële Mm-hmm. alors mm-hmm. comme ça ñu bañ mélanger les rôles mm-hmm. confusion rôle yi moom mooy indi parfois nit ñi ah. di n'y a pas amul limite mais bu ñu tënkoo ci texte yi c'est bien organisé y a ay limites mais en général ñi incarné euh, yenn organisation yenn ñi sont ci kanam ñoom ñooy juum ci nit Oui, oui. voilà parce parce que parfois au nom de la liberté d'expression nit ñi dañuy wax lu et puis man dama jàpp ne amna casquette yo xamni bolé ko parfois dina day dëgg la day jafe quoi parce que pour nga ci sa biir wax nga wane fi nga fare hmm. wala wala nga jéng day yomb day yomb day yomb am na casquette yoo xam ne vraiment boo ko boolee même bu fekkente ni loi bañu ko règlement yi bañu ñu hmm. Hmm. daal doy na war quoi moo tax pour renforcer le expert di dem ci organisation yoo xamante ni ñoom seeni texte dañ naan ah am na ndomba tànk yoo xamante ni yu kawe ci organisation bi. Mhm. mënoo ko faa takk. Mhm. bu ñu xamee sa coloration politique. effectivement waaw dafa dañ naan organisation si apolitique bu ñu xamee ni yow fii nga bokk. Mhm. wala ñu xam ne par exemple yow da nga nekk ay directeur de cabinet wala dara. ay nga am ay ndomba tànk si ah, administration bi. ndomba tànk yooyu nekk si organisation bi duñ la ko takkal. ndax dañuy bañ confusion de rôle. dëgg la effectivement euh, expert ni ñu koy waxee lu duuf ci nag bi xëjul ci cin li. absolument soxna Aida. donc euh, ñu may la nga.

ah waaw jërëjëf euh, Ali question boobu man xam ñi koy wax bëri na mais man parfois bu ñu ma ko xee dama naan leen man de lii lii xaw ma ko parce que man vécu rek lay partager hmm. yàlla dafa def ñun organisation bi ñu bokk muy muy bu mag bi centrale syndicale bi ba mu juddoo ak léegi yàggul mais ñun am nañu ñeenti secretaire généraux. donc mu wane ni organisation buy dund la. di hmm. renouveler. CSA de Iba Ndiaye ji passant par euh, Sène ak euh, hmm. Mamadou Diouf. ba tey ci Elimane ñun euh, Elimane euh, ah, organisation Elimane Diouf. organisation bi waaw Elimane Diouf moom mooy seen njiit. mooy mooy sunu njiit. donc organisation bi dafa dund ba nga xamante ni. man yeneen ni par ñeneen ñi may gis ñu ne dañ fa nekk ay secrétaire généraux à vie dama leen di gis nag am na ñoo xam ne dama leen di gis image à vie kenn du leen changé mais man comme nekkuma ci organisation yooyu dama naan man fii ma bokk fi ma mm-hmm. tànn mm-hmm. am na li ma bëgg muy démocratie interne parce que euh, les les mandats sont respectés mm-hmm. euh, limité aussi deux mandats successifs boo ko defee da ngay dem keneen ñëwaat. Ah loolu am na ci biir CSA te ñu ngi koy réussir. ok am na CSA. Euh, waaye ñu ngi koy réussir renouvellement générationnel bu wóor

expert jaajëf mm-hmm. euh, ñi ngi kontaan ci ni ngeen ñu dalalee mm-hmm. euh, di kontaan aussi si waxtaan bi mm-hmm. di remercier téléspectateurs prestige prestige TV yep hmm. euh, xam naa ni di diggee beneen rencontre. inshallah allah non il faut nga di incha inshallah dinañ dellu si parce que nee naa la sànq économiste nga. Ah. jërëjëf foo xam ne faaw mu woo la fa. Ah. am na foo xam ne faaw mu surtout ci ndey gi. ak cosaan gi. <laughs> c' est ça donc euh, expert. waaw donc euh, coach merci beaucoup donc vraiment amna solo. émission bi moom li ñu ci doon xaar lépp am nañ ci lu raw suñu jot euh, vraiment parce ñun li ñu bëgg rek toujours mooy ku jàpp ni modèle nga euh, jàpp ni nit ñi li ngay doxal ak li ngay wax nit ñi war nañ koo xam pour mën cee rek dañ lay woo nga ñëw donc bu ñu la woowee rek euh, vraiment nga leeral ñu ci li ñu ci leeral ñëpp ñu xam syndicat ni muy doxee xam ne du revendication kese xam ne du xeex kese xam ne ci côté économie mën naa jariñ lu bare bare bari xam ne aussi démocratie interne vraiment da am dañuy former nit ñi dañuy dañuy dañuy donc li nga ci wax bari na ñu xam ne daal kon syndicat lu am am solo la dina tax ñu bari ñu ragaloon syndicat xañ na euh, gën koo jige buñ ci mënee bokk bokk ci vraiment pour mën cee bénéficier wu ndax lu am am solo la donc euh, doyen ñu ngi lay ziar bu baax di la sante di la gërëm di sante wa kër gi di sante wa Thiès wa Sénégal gëp inshallah di wax di dajé bu benen yoon incha allah. Mhm. te sa jërëjëf expert. Mhm. Euh, bla may tàggu télé spectateur di remercier suñu gan gi. Mhm. madame Aïda jërëjëf jërëjëf. ah vraiment té yok nga suñu xam-xam bu baaxa baax. ci lu jëm ci syndicalisme. surtout woné nga né syndicalisme dafa nek lo xamné day indi dara ci économie bi. Eh, ci sa bir wax dégg na né war ngeen dem jongenté donc ñu ngi naan kat yëpp. ngeen def le tout possible le 10 ngeen jóg dem dem wote ji. Mhm. ndax syndicat nag. Mhm. ni ko soxna Aida waxee. Mhm. day indeen njëriñ. bu dëkk bi yëpp. ah ce qui fait que donc di leen lancé appel yéen a xam ban boor ngeen nekkee. ECOMAG newalu fi kenn. yéen xam ban boor la ngeen nekkee ku ci nekk jóg le 12. wote ji ku ci bëgg leeral. dem ci tra euh, employé am. Mm-hmm. mbaa ñu mel ni ñoom soxna ay dem gën laa leeral. Mm-hmm. fi nga xam ne ngay jaaree ngay mën a wote. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp leen sant. di ko commencé ci borom euh, kër gi ci Pape ya euh, ak ñi ah, ñi nga xam ne ñoo ko génn jege. ñoo ñu ma jiital ci nag suñ jarbaat suñu xarit Daouda. di leen ne ba beneen yoon. di leen ne it lu neex. ah du doy du doy dañ koy ba dem ba beneen yoon ah. donc soxna Aida ñu ngi lay daan nu ko expert waxee ah. dinañ dem ba beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa